jërë ngeen jëf ginnaaw delta coronavirus bàjjo bi solaat na meneen mbubb mu tudd omicron ba tàmbalee fëgg ci buntu yenn ci réew yi ci àdduna bi bi l'observateur omicron variant bu bees la bu feeñ ci afrique du sud doonte pare gu ñu ci jàngat bee gëstu ko ak di ko càmbar terewul tiital na boroom xam-xam yu bëri professeur Moussa Seydi chef service maladie infectieuse ak tropicale ca l'hôpital Fann di ñu wax ci l'observateur ne variant omicron bi ak mutation ñu gis ñu moom ndaw ba tax waree su koo caaxaane dañu ko war a waajal ci lépp jël suñuy matuwaay ci fépp ci mu ko waxee ba tey di ci l'observateur kàdduy professeur Tànnaxa Jéey ma nga fa moom expert vaccinologue bi nee na li ñu jaaxal ci variant delta bi moo di néew doole gi nga xam ne néew nañu ko doole suñu digg ak virus bi politique bi laaj yu am doole la ko yéen yi xëy jox tey ji bokk na ci sunal Le Quotidien muy xëy ci poste premier ministre bi ñu bëgg a dellu ci réew mi ba di ñuy wax ne kii di Abdoul Mbaye njiital acte dégg nañu ko démb ci RFM ci émission Grand mu reporté élection locale yi loolee lépp di ay tuuma ki njoxtu yoo xam ne Sud Quotidien nee nañu président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di ay miru ñi faxas na ko ba mu set wecc waaye Ousmane Sonko njiital parti Pastef am xelam dalul ci li Macky Sall bëgg a def moo waral mi ngi alerté ak di yëglu Vox Populi xëy di ñu yëgal ne poste premier ministre bi ñu bëgg a delloosi ci réew mi ak li ñu ko war a ci ay cër ngir mu mën a lu mu néew néew dinañu laalaat ci constitution bi lu mat ñaar fukki article ak juróom l'info nañu premier bi war a ñëw ak i compétence am bu doonu piis la ñu ne Macky Sall da mu yem ci moom mu dagg ko solal ko mandataire bu coalition Yewwi Askan bi woon keroog ca palais de République ak président Macky mooy mbombu ci yéene kay ñu xëyandool journal La Tribune xëy ca ba di ñu xamal ne promotion contre mi ngi gën di am doole ci réew mi l'observateur nañu gis gi ñu ko gis moom Jibril Ngom ca président Macky Sall ba moo waral coow leen mbombule te audience ba dafa rëcc ci communication bu palais ba li rëccul journal Libération moo di fi ñu sant Dias ci réew mi taal leen dara du xew Sénégal ndax bari wuñu fi yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne Khalifa Ababacar Sall mi ngi sàkku ay daan ci Gaston Mbengue mi wax wax ji Ousmane Sonko Thierno Alassane Sall ba ci Soham Wardini ñoom dañoo yéemu ci kàdduy Gaston yi ndaw si di Rama nee nañu moo duma Faatumata Njaay bu fuuta tampi ba yàlla fóoti sa garam taxaw nangu ni moo ko duma te mi ngi xaaru pelentam lu mu ci góobe gar ko ci géeje waaye farandoo yi siiw bi di Jibril Ngom libération nee nañu wax na ne ak jugéem ci yeewi askan wi dem fekki waa APR da koy assumer yéenekaay bii di libération nañu moom Jibril Ngom wax na it ba dal ci kaw Bassirou Diomaye Faye bu parti Pastef Jibril Ngom nee na Bassirou Diomaye Faye bi muy jël suñu waxtaan di ko dugal ci WhatsApp bi waroon na caa boole yi mu ñu doon wax yépp en privé ci coowal mbës mi mu di massage Adji Sarr ba dugalaaleet fexel gi ko ba xamal xam ne bureau union des magistrats du Sénégal noppi na ko ci affectation yi bàyyeekoo ci ndajem conseil supérieur de la magistrature bi woon keroog la ñu xamul lan moo ko waral. Samron Marseille Alfé CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Déotran Malaysia yemu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM bokkoon na ci nay xibaar ñi ŋàññ yëpp kàddu yu Gaston Mbengue jëmee ci euh, ñi sant jaar ci réew mi ne daanaka matuñu téeméer ca bu ñu leen taaloon euh, du yàq dara ci doxinu réew mi yooyu kàddu nag du euh, ku ko rafetlu rawatina géopolitique bu Sénégal ñun ci gën a ràññee ñëpp muy Ousmane Sonko Abdoul Mbaye euh, ñoom ñëpp àndandoo Alassane Thierno Alassane Sall di ko ñaawloo sàkku ci njiitu réew mi euh, mu àddu ca bokk na ci ñu ko ñaawlit ku ci mel ni soxna Soham nii candidat mairie ville am Ndakaaru Khalifa Ababacar Sall na ko noonu ñoom ñëpp dégg ngeen leen wala bokk waxtaanee nañu ko ci xibaar yi ci ñaawlu googee ñu ko ñaawlu yooyu kàddu <coughs> yu Gaston Mbengue ñu gis ne daanaka yu mën a taalam réew la. Mame Matar Gueye moom division investigation criminelle la ko woolu tey bu 10 heures moom vice président bu ONG Jamra donte xamul lu waral woolu gi Sénégal Mauritanie dem ak dikk gi jaare dex gi ubbikuwaat na fukki gaal ci wet gu ca ne la ñu may ñu daal di kon tàmbali daw ak dikk gi loole eh, ginnaaw bi nga xamante ni tëju na yoon woowee ab diir wàllu xibaar bokkoon na ci it bi ci tukkee ci ministre des finances ak wàllu budget eh, Abdoulaye Daouda Diallo li ko dalee 2026 këru ciment ci réew mi dina nu fay lempo eh, demeewu ni boobaak léegi waaye tàmbali ko fekk ak ñeenti at kon ñoom ñëpp ku ci ne daañu lay léegi di dogal impôt ba mu des ki ci mujj am agrément Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi digital gi soxna Yacine ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn lu jàmm. matin 8 h ñuy jégalu El Hadj Assane ci prolongation yi. Euh, di ba 9h comme rugby nga <laughs> yi jërë ngeen jëfati ci ànd beeg RFM ñu ngi leen di ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen ñëpp xibaar yi dañu koy tàmbale ak ñi euh, nga xamante ni noonee la àddina gisee kàddu Gaston Mbengue jëmee ci ñi euh, sant Diaz ci réew mi du ku ko rafetlu ay kàddoom ci pàttali di bu nu leen taaloon ñoom ñëpp du wàññi dara doxinu réew mi loolee aji politique yi opposition bi rawatina kenn kenn rafetlu ko ca ca bu nu sañoon euh, njiitu réew mi addu ca moom Gaston Mbengue donte mu ne du lu muy rëccu Mame Mactar Guèye bu Jamra woolu nañu ko tey ci kanamu division investigation criminelle euh, ni nu ko baaxoo ñoom kër googee euh, waxuñu ko li waral woolu gi Sénégal Mauritanie yoon wi jëm ci dex gi ubbiwaat na ci dogalu kilifay ñaari réew yi lañu koy tàmbalee rek nay autorisation mooy fukk ci gaal lañu ko mayegum ngir dem ak dikk gi leneen ci xibaar bi ci tukkee ci ministre des finances nationale li ko dalee deux mille vingt six mbooloom këru si ngi ci réew mi daanu fay lempo ba mu des ki ci mujjee am agrément Abdoulaye Diop ci technique bi. jërë ngeen jëf ci ànd ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle corniche xibaar yi ak kàddu yi nga xamante ni Gaston Mbengue farandooy président Abdou Macky daal dina ko yëkkati ci télévision jëm ci ñi sant Diaz rawatina Barthélémy Diaz bu nu leen taaloon mu ne eh, ci réew mi eh, du ko teree dox loolu nag di kàddu yu eh, ku ne ñaawlu aji politique yi rawatina ci Sénégal dale ko ci Ousmane Sonko soxna su Soham Wardini Abdoul Mbaye Khalifa Sall Thierno Alassane Sall ñoom ñëpp ñaawlu ba fa ñaawlu yam kàddu yu ni mel Amadou Sabax baax turu Gaston Mbengue bokk na ci li ñu gën a waxtaane démb ci dimanche ji ci internet ñu bëri jàpp ne ne kàddu yi nga xam ne ne moom promoteur bi yëkkati na ko tegginuwul jaaduwul te dina indi li nga xam ne ne mooy bodd ci suñu réew loolee mu yëkkati ko ci émission bu doon amal ca Walf TV moom promoteur bi ñu xam ko lool ci làmb ji tey jàppale njiitu réew mi ci wàllum politique yëkkati yooyu le kàddu jëmale ko ci ki nga xam ne ne mooy baxti limi Diaz nekk candidat coalition Yewwi Askan Wi ci mairie bu Ndakaaru politiciens yi àddu ci bile mbir di ko ñaawlu ba fu ñaawlu yem njiitu Pastef la mu bëgg mooy président Macky Sall génn ñaawlu bile mbir ndax Ousmane Sonko dafa jàpp ne lii mën naa jurug fitna ci kàddu yi nga xam ne ne Gaston yëkkati na ko teg ko ci ndoddu Barthélémy Dias Soham El Wardini moom it nekk candidat ci mairie bu Dakar ñaawlu na yooyu le kàddu tukkee ci promoteur de lutte bi mu ciy teg ne élection gogoxaan yi ñu jëm warul tax rek ñu fàtte li nga xam ne ne mooy suñu cëslaayu réew tey wootee ñu gën koo sàmm a ba ci benn tweet mu ne ñi nga xam ne nag ñuy gën di wane seenug cuune ak seenug tële ci li nga xam ne noonu la ñuy jiitee réew mi bokk ci ñuy ñaawlu yooyu le kàddu ke fi nekkoon maire bu Dakar Khalifa Ababacar Sall di fàttali li nga xam ne ne moo samp suñum réew maanaam booloo ak muñalante naam sax ñi ci àddu bari na di ko ñaawlu waaye Gaston Mbengue ci beneen vidéo ma ngay wax ne ne rëccuwul dara ci kàddu yi nga xam ne ne yëkkati na ko teg ko ci ndodd Barthélemy Diaz lu ci mënti am rek yii le kàddu jibee ci Gaston Mbengue war naa interpeller ñi nga xam ne ne ñoo taxaw ngir way yi signé li nga xam ne ne mooy charte de non violence fii ci suñu réew. Amadou Sabar Ba Djibril Ngom mi bawoo Yewwi Askan Wi wutali Benno Bokk Yaakaar moom ginnaaw audience bi njiitu mi président Sall euh, daal di na ni mu ngi xaar euh, ba fa xaar yam plainte bi nga xamante ni Déthié Fall nee na da koo yëkk jëmee ci moom moom euh, coordonnateur bu coalition Yewwi Askan Wi ci wenn wàll Djibril Ngom weddit ba mu set wi ci mu ne koppar yi ne da koo nangoo ci audience bi Ali ñoo jotul benn koppar ci audience ba woon ca palais présidentiel mooy kaddu yu njëkk Jibril ngoom gannaaw bi mu dajeek njiitu réew mi muy tuumal ñi nga xamante ni ñoom la bokkaloon parti di Pastef. gis naa comme ñëpp daal ci réseaux sociaux yi bi ma président dalalee des photos ñu ne nañ man dañ maa jënd parce que président jox na ma xaalis damay rappeler les Sénégalais yi ñun kenn du ñuy jënd kenn joxuma une quelconque enveloppe et su fekkee dañ maa joxoon dama koy wax ouvertement à devant tous les Sénégalais xam naa ni nag ñu nekk derrière tout ça c'est des gens qui beaucoup stratégiques qui essaient vraiment ñu def benn buzz jaar ci enveloppe boobu ñu def buzz euh, voilà. gannaaw bi mu officialisé duggam APR ki fi ne woon mandataire yooyu askan wi kat nee na day ñëw jàppale député Farba Ngom. ñu bëri bàyyi nañu parti bi ci Matam xoolal gars yi ñu ngi bàyyi parti bi en masse. dans dama lay jox benn exemple bu lay firndeel ni parti bi au niveau de Matam c'est pratiquement xoolee commune nekkoon yépp Pastef démissionné nañ coordonnateur tout le bureau a démissionné man coordonnateur ex euh, coordonnateur démissionné naa le plénipotentiaire il a démissionné membre de la commission finance département a démissionné plainte bi nga xam ne nag coordinateur national bu yeewi askan wi annoncé na ko Jibril Ngom nee na moom loolu rek lay xaar déglu naa Déthié benn annonce dina ma porter plainte mais dama koy wax ni man aussi je si un citoyen libre mais ma ci sama engagement politique ñu am ci moom te ne woon mandataire Yewwi Askan Wi mu ngay xam le ni dana amal tournée ci département bi ngir ñëw waxtaan ñamu àndaloon ca Pastef ngir ñu ñëwaat ci biir parti Macky Sall mu ne seen naataango Ali Bandel ñaa fi ci doonu Matam pour RFM. jërëjëf Ali Bandel fii ci Dakar waaye Yoff daal amal seen investiture fal seen mbër ngir élection locale le 23 janvier 2022 ngir mairie ba ca Yoff Abdoulaye Diouf Sarr mooy ki nu tànn nekk mbër fàttali ni ci weneen wàll mooy it mbërëk Benno Bokk Yaakaar ngir mairie bu Ndakaaru eh, bëgg na ci tànneef li dig ndam lu yaatu bu keroogee 23 janvier 2022. RFM rajo askan wi. këru ciment yi ci réew mi li ko dalay 2026 ñoom ñëpp daanu fay l'impôt ba mu des ki ci mujj am agrément kàdduy ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo ci weneen wàll mu xamle ni budget gafagay Sénégal dina attan lu jëm ci wàllu primature beneen ma kumba Bey usine ciment yi nga xam ne duñu fay l'impôt te bokk ci entreprise yi ëpp xaalis ci réew mi metti nañu bëri waaye fii ak ñeenti at loolu dina jeex la Abdoulaye Daouda Diallo ministre du budget wax. à partir de 2026 la totalité des cimenteries. lu ko dalee ci atum 2026 képp ki nga xamante ni cimenterie nga nekk fii nii ci réew yi danañ la dugal si régime commun bi maanaam di nga fay lii di say impôt ba mu des CIMAF moom mi nga xamante ni bañ ko agréé yàggul ñun ak ñoom nag d' accord nañu ni que impôt sur les sociétés euh, danañ ko daal di euh, maanaam daal joxe lu tolloog 15 pour cent. pour cent. ministre des finance et du budget nee na ICS industrie chimique du Sénégal ameel na état bi cent vingt milliards mébét mi nag mooy fexe ba fayee ko xaalis boobu te doon lor entreprise bi. budget wu deux mille vingt deux bii di jàll assemblée nationale defar nañ ko ba noppi poste premier ministre war a dellusiwaat kenn waajalu ko woon te poste boobu bi muy dem quarante neuf milliards la woon. ministre du budget fas yéene dem ca lam dencoon te kenn waru koo laal. c'est am na li nga xamante ni ñu ngi ko tuddee réserve de précaution di ab euh, koppar yi nga xamante ni dañ ko jël denc ko euh, ca wet ba ngir bu ko daan defee bu amee lu ñu bett ñu daal di ko jël mën a régler yenn ci ay problème ci atum ren gi nag lu tolloog cinquante milliards ci wàllu fonctionnement ak itam cinquante milliards ci wàllu investissement moom la ñu denc. pour faire face justement donc à des situations yi ñoom seen i budget wote nañ ko ba noppi. muy présidence de la république 73 milliards assemblée nationale 17 milliards au conseil des collectivités territoriales 8 milliards conseil économique social et environnemental 7 milliards conseil constitutionnel 1 milliard cour suprême 2 milliards cour des comptes 8 milliards. jërëjëf Makumba euh, xibaar bu neex ci ñi daa dem ak dikk euh, ci ñaari wet yi di Sénégal Mauritanie jaare ci dex gi ubbiwaat na euh, boobee yoon terewul nag ci wàllu autorisation fukk gaal rek lañu ko mayegum ngir dem ak dikk gi dañu ciy déglu kenn ci mbootaay nga xam xamante ni ñooy piroguier yu Rosso Sénégal yi ko rafetlu lool Amadou Lay ak Mamadou Diagne lu tukkee ci réunion boobu mooy nii daañu bàyyi fukki gaal ci Rosso Mauritanie bàyyi fukki Sénégal léegi bu ñu juboo ci loolu am na condition yi ñu signé parce que nekkul nekkoon ne ñaari état la état yi lu ñu lu ñu doon wax rek di dem di nga ko doon wax di ko tënk di ko bind ci ay kayit muy convention bi nga xam ni diggante ko signé nu nangu ko nun mooy ni dàkk nañoo dàkkoon nañu ñu bokkandoo ko seet nañ ko fukkee daw. waaw dëgg la ñetti téeméeri gaal ñu ni fukk ñuy daw comme que pandémie bi dafa ñëw ci Sénégal nu ñëw nu nangandoo ko su dee am na ñu teg suñu ko suñu ko tegee na ñu façon règlement yi nga xam ni dafa amoon ci suñu biir ñu jokkoo nekkaay bokk ci liggéey ci loolu la ñuy dellu muy rang fa am rang yu nekk fii rang ku nekk sa bisu rang xam nga ka sa rang fu mu toll daa xam ne kii sama rang la ci lu ñu liggéey ñu siy mosalante parce que du gaal yëpp baax gaal yi yàqu nañu li ngeen gis nii benn benn gaal nu ñu fii dajalaatu kooku kenn ku nekk am nañu am am nañu amul ñu def ni duñu yemale ñu am ak ñu amul parce que lu yàlla dogal la ci nun muy feebar il faut ñu bokkoo ko maslaha béy balaa mu ubbeeku ku nekk bu amee dara mu dem <clears throat> Amadou Lay la woon mbokk yi bokk ci boromi gaali xuusu Sénégal doon àddu ci ubbiwaatuk euh, dem ak dikk gi ñeel deex gi euh, diggante Sénégal ak Mauritanie fii ci Ndakaaru Tiwaawoon Pël ay kër yu bari wetoog Védène 3 gi ñoom euh, dañ leen di arto daal di daane foofe la naka la xewoon 2017 loolu askan wa borom kër ya fa di bañ nak waral seen ak yëglu ñaawul nanu joxoñ ci ñii di promoteur yu njubat yi ak it bu nu sañoon ñu ne njiit réew mi àddu ci Ousmane Ndiaye la ñu ci àndal bokk ci seen kuréel ci micro Abdou Diouf Diagne procédure ñoom ñëwuñu waxuñu barki Dembo Ndiaye coopérative primature boobu ñuy wax dellu siwaat fi ne dañuy ñëwaat jëlaat suñu alal bi nga xam ne état du Sénégal joxoon nañu ko ba pare loolu nag lañ dul nangu tal ci loolu tamit dafa am leneen loo xam ne dafay ñëw raxaale tey ci dëkkuwaay bi tey xoolal dëkkuwaay bi ni mu mel nit ñi tabax nañ seeni kër ba dëkk ay néew ju doole ay père de famille ay mère de famille nekkoon ci ay situation yu doy waar tey ñu ñëwoon Tivaouane Peulh am ci seen benn lopin de terre tabax fa seen sagarub di nat natal nañ fi benn nit bu ñu naan promokabil koo xam ne benn këyit rek la yor fu mu ko lal fu ne rek buñ ne ko du fii mu daw yóbbu ko feneen lal na ko Malika barki démb ñu daaxee ko fa mu ñëwaat ñu fi dëkk ay at ci ginnaaw yow nga ñëw barki ko doon xool ba mu dal ñu en 2017 la woon 2017 dootu ko doonati ci at yi ñuy ñëw pare nañu tey pour képp ku fi duggati heure boo fi mënee ñëw ak képp koo mën a àndal dinañ la jox suñu bakkan bi ndax lii dañ cee xeexoon ba état du Sénégal delloo ñu ko te bi ñu ko delloowee li ñuy wax nii on prend en témoin l'opinion on prend en témoin différentes autorités ñu mës a recevoir à savoir le ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne mi fi nekk premier ministre du Sénégal ba tey ci xibaaru suba sek bokk na ci wàllu yoon ak woolu gunu woolu ci kanamu division investigation criminelle euh, vice président ONG Jamra Mame Mactar Gueye bu 10 heures tey lañu ko fa woolu ci page Facebook am la siiwal xibaar bi teg ca ni xamul lu ko waral googee woolu euh, ca gin gi neew ay agent yu brigade mobile douane ba fa si saisir ñeenti kilo ñeenti colis koli yu yàmba maanaam euh, tolluwaayu ko ñetti téeméeri kilogramme trois cent kilos euh, yu valeur ñaar fukk ak ñeenti million teg nañ ko loxo euh, ña ko bëggoon a jàllale nag nasa sa trafiqué ñoom dañu ne mess jamonoy yi xilu. maa ngi lay ziar malal. maa ngi delloo ziar la jasan yamba jooju amoo ci nouvelle ah suma <laughs> kaali moom alaaji <laughs> kii woo ma ko boo ko sama affaire waaw ah, foofu moom suñ <laughs> koy baax waaw ay bismillah nu doore ak uh, li ma mën mënee muy wàllu tàggat yaram ci ak bi dem ba ña nga woon ci uh, ñaareel bi journée dañ ko jeexal douane daa cee di am ndam ci tàkkusaan gi moom cundum moo daanaka am ndam ndax moo dem fekki géejawaay ca uh, géejawaay dóor ko ñaari bal si benn ba jongante ba jeexee nag Souleymane Diallo bii di tàggat équipe bu géejawaay ji ni daal dëgg-dëgg lu bëri ñu riccu ndax euh, défaite bi mën nañ ko moytandiku ñu déglu ko ci micro RFM. su ma woon xalaat dinañ jël bi te boo leen xoolee bii bi niñ ko jëlee bii la boo xam ne mënoon nañ ko moytu bu baax a baax parce que bal bi fu mu ne woon ñoo fa ëppaloon adversaire donc gisuma lu war a tax ba ñu ñàkk foofu ballon bu bal boobu di dugg donc mais euh, lu wóor te woo maa ngi gërëm xale yi parce que lu ñu waxoon woon def nañ ko xamoon nañ adversaire bi daa toog dina xaar c'est à nous de faire le jeu par moment ils l'ont fait mais dafa euh, dañ ko boole un peu avec euh, mais il faut saluer également deux montants. Donc euh, pour moi, maintenant, on va tirer les enseignements pour partir euh, avec un lendemain. Donc, euh, euh, bon, je ne dirais pas, Dorul, moi, vous m'avez évalué en termes de quantité. D'accord Moi, puis Bunjel, parce que l'adversaire du goal n'a pas Mais vous nous évalué en termes de qualité. Je pense que les garçons ont produit un, un match acceptable, un match. Un match bu xam ne war nañ am euh, jàngat bu baax baax si loolu maintenant lu wóor te wóor dañuy ñibbi dem xoolaat lu ñu war a liggéeyaat et ne war nañ ko liggéeyaat pour jeejuwaay euh, ban bi souvent solution fa lay jógee bu fekkente ne ban bi euh, on n'était pas trop lucide day indi ay ay gàllankoor et loolu moo reflété effectivement match match bi. beneen jongante ca Thiès euh, stade Maniang Soumaré moo fa doon jongante ak génération foot dañoo mujj teew kenn dugalul dara Abdou Sarr di entraîneur équipe bu Thiès bi moom itam yëkk na kàddu ci na mu gisee xale mi na nu seen digganteeg waa génération foot. dañoo amoon équipe boo xamante ni dafa tactique suñu kanam donc en première période euh, dañoo joué bloc médian ak ñoom et dañu joué bloc médian bi aussi on a senti que ñu ñu suñu équipe bi ngi doxal parce que amuñu woon benn jeune parce que aussi loo euh, lu ñu ci mën a wax rek nos jeunes étaient très déterminés moo tax ñu def prestation bu mel ni parce que ils ont respecté consignes jox yëpp et on a travaillé ça toute la semaine donc c'est normal ñu répéter ñu prestation bu mel nii maintenant quand tu as xamante ni comme j'ai expérimenté donc c' est normal à un moment donné ñoom ñu jël dessus bi ci yow maintenant suñu tu n'es pas tenu tu n'es pas obligé nga ñëw song leen à tout prix parce que une grande équipe reste toujours une grande équipe. Euh, ñu jàpp itam ni Njàmbur dafa tëw waa Gorée ku nekk amoon nga benn sa kangi morom gannaaw ñaareel bi journée euh, ñii di waa te Tëngéej FC ak euh, Génération Foot noo jiitu ci championnat bi ndax ñoom ñaar ñoom ñetti ñëpp ku ci nekk am nga ñeenti poñ Ligue 2 ji itam des si di jàpp ni ñaari télé ngay woy di doxal dafa daan dug ñaar si dara Renaissance ak Port dañoo tëw kenn dugalul dara jamono Fatick dikk doom dóor Demba Diop ñaari bal si dara si altine ji mooy waa Oslo Thiès FC ak waa Stade de Mbour nu waxtaanee wàllu football bi euh, ca Angleterre démb amoon na match bu amoon solo diggante Chelsea ak Manchester United tëwo la mujjee ku ne am benn sa kangi morom City sip neige bu taroon ci la daan équipe bu ñaari bal si benn loolu moo tax sax ba fi mu toll nii mu daal di euh, topp nag sës rek ci waa Chelsea ndax benn poñ mooy li leen teqali Leicester daji naa daan ñoom Ismaïla Sarr ak waa Watford di ñeenti bal si euh, ñaar loola kon mooy ñu waxtaanee itam wàllub euh, lamb ji démb forsa bu fas ak waa écurie euh, Ndakaaru léegi benn écurie la ñoom euh, ñoo daan pakala bu Mbour jël bu amul benn werante ca arène nationale Alioune Seye numéro 2 bu waalo itam daaj na fa dóor Zos yóbbu ko Ardo daan ko santan ñi ngi itam di mbër mu dëkk cëp Mbour itam wane na fa moom ndax dafa daan ci lu amul benn layam layami kii di Weuz jàmbaar bu yaraax jël bu wér la ko la ko daan da ko wan ni daal euh, moo ko jiitu ci kuddu yi biberon yi ak ginaar yi <laughs> tubaarkalla malal ji ñoom mu mel ni làmb ji kon dekkiwaat na làmb ji tubaarkalla démb amoon na solo li ñuy ñàkk rafetlu rek mooy ba làmb ja jeexee daam am ay gone yu doon déjjati encore toogu ya mm. di ko sànni loola di loo xam ne rafetlu ñu ko xabaar nañ sax ñu ne police bi mm. am na ci ñenn ñu doon def ñaawte yooyu jàpp nañu leen mm-hmm. dimanche ji di ñëw Papa Sow moo war a bëre ak euh, ak Siteu. ñu ñaan gone bu ñu ñëwee ñu indaale esprit fair play da daanu wala nga daan. dëgg la tubarkaal nañ yar gune yi. waaw am na solo nañ gune yi ci kër yi d' abord. important Sénégal problème mu yar la ñu am. ñu baal ma muy noonu. <laughs> ndax sport moom da ngay gagné. wala ñu gagné la mbaa ngeen match suñu. lu ca yoon yi dajjite chaise. waaw ndax loolu suñu alal la ñoo ko bokk. mu ngoog loolu kenn bu ko kenn yàq. jaajëf Malal chronique culture bi ñu dalal Hadj Ndate Diop dal leen ak jàmm wàllum mbind wark dalal na ci aser ji ñu génn ab cérémonie présentation dédicace téere bi ñu duppee à l'ombre des voix bintuka ma nga fa woon à l'ombre des voix recueil texte yu ay auteur yu wuute bind livre boobu mu ngi wax ci dundin doomu aadama yi période mbas mi di coronavirus Ibrahima Wane co-directeur bi. am na ay expression ak ay tournure yoo xamante ni lu am solo la wax nañ leen ci naka la nit ñi di def ba soriante woo wax nañ tamit dayo bi nga xamante ni muy am nañu ko wala sax lii di confinement bi bu ñu xoolee ba xool loolu lépp aw làkk la woo xamante dina tax ñu sampaat ab laaj ci lan mooy réalité bi bu ñu xoolee sax lenn ci ay ay textes yoo xamante ni jot nañ ko liir ko ci la ñu demee ba xam ni lenn ci auteurs yi ñoom ñu ngi woon ci lu mel noonu. ñi bind livre bi dañoo indi ay seede ci dundin bi ñu nekkee ginnaaw bi mbas mi di di coronavirus lëmbee àdduna Abdoulaye Diallo directeur Armaton Sénégal éditeuru livre bi. sur cette thématique de ci thème bi nga xamante ni moo jëm ci wàllu Covid 19 mi nga xamante ni jugul benn yoon ci di wan boppam daanaka boo dee xool ay texte la yoo xamante ni dañu ko xalaat méngale ko ak tamit ci li nga xamante ni moom la ñuy dund saa su ne. ici nous sommes dans le cadre bind mooy ngànnaayu auteurs yi ci période yu mel nii kenn ci auteurs yi. je suis très contente euh, àndal ci bokk ci bile xew-xew lu ëpp diirub ñaar fukki at maa ngi bind ay nouvelle woote bi amoon na solo lool ndax mën naa wax jëlee naa fi yeneen xam-xam. Alpha Amadou si ak Ibrahima Wane ñoo jiite initiative bi livre bi 117 la te day wone ci diiru confinement bi nit ñi dinañ ci mën a càmbar bu baax. naka la ñuy def ci wàllu politique publique locale yi ñu dugal ci bu baax a baax wala jël en compte lii di développement industrie culturelle xët woowu war a dajale niki tey jii ci altine ji bu ñetti waxtu jotee ca maison des cultures urbaines bu ndakaaru nekk ca wakkaam ay soxna ci wàllu politique ay actrices de développement ay artistes wala sax ay activistes yu jigéen.